spécial spéciale Saint-Valentin oui euh, tey ak suba euh, dañuy célébrer euh, Saint-Valentin ci suñu ay habitude la ci suñu tradition la bokk depuis très longtemps d'ailleurs moo tax chaque année ñu leen di proposer rendez-vous bu xaw <clears throat> bu xaw a particulier euh, par rapport ak euh, yeneen euh, rendez-vous yi ci télévision Futur Média def nañ ko daaw def ko daaw géej depuis télévision Futur Média existé wala sax depuis mbëggeel existé dañu koy célébrer datu février bi nag mooy date bi nga xamee ni de façon officielle selon l'histoire moom la ñu tànn pour pour célébrer les amours ñun itam comme ni ñu koy defee chaque année on s'est dit pourquoi pas ñu proposer leen soirée bu spéciale ren malheureusement euh, Saint-Valentin dafa tombé ak crise euh, bu xaw a mondiale wala sax bu mondiale euh, di crise sanitaire u Covid 19 sinon fii comme d'habitude bu ñu ko daan def dinañu def rassemblement woo artistes yi woo couple mais pour cette année on s'est dit on va faire simple. Euh, bu ko defee ngeen mën a euh, dund quand même euh, soirée bi tey la ak suba ci télévision Futur Média le 13 février le 14 février deux jours durant ngeen célébrer ko donte depuis début mois février yéen a ngi dund li nga xamante ni moo di mbëggeel ñi nee nañu normalement kenn warul xaar bis Euh, pour célébrer ko ñi ci des ne euh, oui euh, chaque jour dañ ko war a dund mais quand même date bu spéciale bi bu yegsee baax na itam ñu célébrer ko on va pas on va plus revenir ci ni ñu ko daan defee di leen raconter histoire bi fan la jógee couleur bi code bi xam ngeen ni rouge la ak noir je suis en rouge et en noir invité yi aussi en noir ou en rouge en tout cas kenn du ñàkk bañ a respecter code couleur bu Saint-Valentin fexe na ba moom fête bi en plus de code couleur bi am ay particularité am euh, muy góor wala muy jigéen ku nekk nga bëgganteel euh, bu la neexee nga ofrir ko cadeau gis ngeen ni ren tendance bi euh, tout se passe sur digital bi moo xam Facebook moo xam Twitter moo xam Instagram moo sax xam WhatsApp depuis déjà quelque jour yéen a ngi envoyante ay cadeau ay ay message d'amour lépp rek ngir gën a fésal wala dëggal seen mbëggeel on s'est dit aussi cette année pour faire simple dinañu woolu euh, ñaar ñoo xamante ni kenn ku ci ne ci wàll bi nga féete ràññee nañu la quand même ci ay chansons d'amour yu neex euh, ñoom euh, dañu leen miin ci mën a bégal xol mën a seddal xol et que tey defe naa xol cœur bi euh, mooy lu ngeen di euh, gën a gis euh, ci télévision Futur Média c'est en rouge et puis dafay gën a dëggal mbëggeel ñaar ñooñu nag ñu wóolu leen tey pour ñu ñëw bégal ñu ñu fasciné leen proposer Saint-Valentin mais en chanson voilà il y aura moins de blabla waaye beaucoup de musique d'amour yoo xamante ni mën na féexal seen ay xol alors ñu fas yéene ànd ak Adiouza Madame Bonheur ànd itam ak Yoro Ndiaye Euh, il cartonne il fait plaisir euh, aux Sénégalais euh, tey mu ñëw pour euh, bégal ñu ci guddi gi nga xamante ni moom la ñu tànn euh, pour célébrer mbëggeel donc je vais léegi nii accueillir leen ci plateau bi Adiouza ak Yoro Ndiaye ñoom laay fas yéene àndal tey ci guddi gi pour célébrer Saint-Valentin ci télévision Futur Média je pense que mën ngeen yegg si voilà. kenn ki càmmiñu kenn ki la quoi mais bon ñoom ñaar couplé tey <laughs> mënul ñàkk Adiouza ak euh, Yoro tous les deux en noir mais c'est beau <laughs> madame Bonheur. na def ça fait longtemps. ça, ça va ñu def nuyoo Covid quoi malheureusement waaw. <laughs> bon toog je pense que respecté nañu quand même. mesures on est obligé on n'a pas le ah ah, heure bi daan na fekk nit ñi di ëggante kottante et tout même avec ton mari euh, je pense que ëgg euh, bi sax di nga ko xaw a éviter tuuti wala koy ëgg. da ngay éviter lépp ak Covid bi Covid oblige. mais accolade mënul ñàkk nag. accolade bi sax j'évite maintenant. <laughs> parce que tu as peur merci en tout cas d'être là je suis très content de vous recevoir yéen ñaar ñëpp. Euh, kenn ku nekk da ngeen am ay relations yu particulières euh, avec les Sénégalais toi tu as grandi devant les Sénégalais Yoro Ndiaye euh, depuis mu ñuy bégal ak musique yu soft Yoro et sa guitare Yoro ak acoustique ñoo dem ba même mu dul Saint-Valentin couple yi bu ñu bëggee bég dëgg dëgg dëgg dëgg dañuy dem soirée Yoro bu ko defee mu defal leen ay ay musique yu soft quoi moom yëfam amul ndaateel ak ndaata tallax te gis ngeen <laughs> ni ñu tamiser lumière plateau bi nii c'est voilà c'est c'est une idée qu'on vous donne pour ngeen def ko seen biir kër yi bruit bu leen kenn sonal faites-vous plaisir si vous avez des enfants na ñu dem teel a tëddi comme ça ñu euh, bégal leen quand même quoi donc c'est important Adiouza nag mooy madame Bonheur madame Bonheur nag euh, léegi sénégalaise yëpp dañoo tuddee seen bopp madame Bonheur aaw ah yi ay madame Bonheur lañu ñaareel yi ay madame Bonheur lañu ñetteel yi ay madame Bonheur lañu ku ci am sax euh, sa coro wala koy génnal yow da ngay considérer comme sa bopp comme madame Bonheur donc on est très content de les itam euh, symbole euh, mbëggeel lañu donc Adiouza yow laay euh, démarrer ma bàyyi la nga nuyoog suñu xarit ci nga xamante ni tey ñoo ànd ak ñun ci soirée spéciale Saint-Valentin bi ñu leen di proposer ci télévision Futur Média. donc Pape Cheikh di la remercier bu baax ci invitation bi di remercier sama frère Yoro. Ah, ah. maak moom dañu yàgg lépp lu may def rek Yoro day ñëw jàpp si. sama concert yi gën a mag yëpp Yoro fekkee na leen donc ah. sama frère la. donc bokk ak moom plateau <laughs> <laughs> daf may neex loolu couplé ak moom saint en plus donc dafa may neex loolu maa ngi leen di nuyu di nuyu aussi téléspectateur u TFM yi ñuy mm-hmm. seetaan ñëpp mm-hmm. di leen souhaiter rek bonne fête de Saint-Valentin mm. xam naa ne nag Covid oblige bi yoon Saint-Valentin ou Covid la ñuy def mais on va s'adapter quand même on va vous amusez. Ouais. Saint-Valentin <laughs> mesure barrière. waaw mesure barrière Saint-Valentin boo xam ne dañuy dandante quoi. waaw dañuy ku ne day soreel ku ne ragal. dafa mujjee metti dafa mujj metti <laughs> voilà Yoro ñu ngi lay nuyu yow itam kontaan ci ni nga ñëwee euh, pour béggal sénégalais yi ci euh, soirée Saint-Valentin bi. merci Baye Cheikh maa ngi lay jaar maa lay jaar bu baax. Mm. di am mbégte. ñëw toog ak yow tey si plateau bi euh, fekk fi suma rakk ji aussi. Hmm. biñ ne ma maak moom a nar a sekk plateau bi dama kontaan parce que moom wax dëgg yàlla bu ñu xamante yàgg na. Hmm. Euh, bi ñuy njëkk a échanger c'était à Paris. voilà donc <laughs> depuis lors lépp lu mu yëngat. dina ma dina ma si boole. man aussi vraiment ñu am ay sensibilités yu ñuy bokk. en tout cas mu rafetlu liggéeyam di ko di ko ñaaxaat ak di ko ñaanal aussi. Mhm. carrière am gën a dem kanam. di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp di leen ñaanal une très bonne fête de fin de de Saint-Valentin. <laughs> di tàmm déwéné ci de <laughs> donc di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne bii ñu ngi bëgg ji bëggante. yàlla gën a suuxal seen mbëggeel. waaw parce que mbëggeel dafa neex. waaw àdduna lépp mbëggeel la. donc yàlla nañu yàlla gën a naatal suñu xol yi ba ñu mun ci bañ mun ko di partager ak ñu ñu bëgg important mhm. c'est vrai que nous sommes dans une période boo xamante ni on a tous besoin d'amour parce que léegi dëkk bi metti na euh, coow yi bëri na euh, covid baa ngi fii dee yi bëri y a que l'amour qui peut nous soulager mhm. n'est-ce pas mbëggeel rek moo ñu mën a soulager en oh, xam nga mbëggeel mooy lépp en quelque sort mbëggeel ci man c'est c'est la base c'est mhm. l'essence même de la vie mënoo def dara sans mbëggeel en quelque sorte même c'est c'est c'est de l'amour c'est l'amour yow li ngay def ni ci passionné c'est de l'amour mm, mm. donc lépp looy def rek boo ci amul amul rek mm-hmm. donc doo ci mën a yàgg en quelque sorte donc euh, relation yëpp couple yi li ko lal avant tout c'est l'amour mm-hmm. quand l'amour n'est rek après day metti mm-hmm. muñalante bi day metti donc li ñuy ñaax couple yi rek mooy mbëggeel na la lépp avant tout l'amour avant tout et puis yéen seen mission dafa gën a metti parce que vous êtes là di di joxe mbëggeel euh, amul benn woykat boo xamante ni dina génne woy te du ci boole ay chansons d'amour donc finalement yéen ay missionnaire mbëggeel ngeen yor. Euh, bien sûr mbëggeel c'est la base de tout ah. mbëggeel moom je crois que lépp looy def bu amul rek en fait mënul mënul mënul sax. en fait mm-hmm. mënul il faut que yow ci sa bopp nga joxe ko ak mbëggeel. Mm-hmm. nit ñi approprier ko doog ko bëgg quoi donc mbëggeel mën naa ne c'est la base de tout quoi. Euh, autre chose boo gisee ki nga bëgganteel te xamaguloo ko daf lay jaral. exact voilà par exemple premier rendez-vous da ngay toilettu. côté ñun jigéen waaw make-up la total quoi. da ngay defaru détail yëpp doo bàyyi benn détail. est-ce que bu ngeen xasee ba nekk jar na nga bàyyi loolu nga doon. Euh, ñun jigéen ñi noonu nga doon reyee sa bopp. ñun jigéen ñi nag looloo suñu defoo. d'accord. parce que ci ndoxaan bi et tout da ngay gis da ngay waaye da mel ni tàngal quoi. Mm. mais <laughs> mariage un mois deux mois nga commencé. bàyyeeku sëri man sama classe gi mël fa laay sol. <laughs> mël fa toute l'année quoi chez oh. moi en mël fa. Eh. donc ku may bëgg noonu nga may bëggee ku may bañ. <laughs> alors que bu rendez-vous jotee da ah, ngay ah, defar ba bu baax quoi voilà je prends le soin defar image bi et tout make impec et tout teg greffage tandis que à la maison ak samay dreadlocks ñoo nekk ak sama. Euh, naturel mël fa waaw naturel. donc euh, kii même daal noonu nga may bëgg. mais est-ce que baax na. baaxul quand même <laughs> baaxul parce que jigéen quand même war nga jógee tuuti. Mhm. Euh, maintenir flamme boobu. parce que mhm. góor ñu bëri dañ koy dañ koy kaas en mhm. quelque sorte. dootu bu ñu demee ba ci biir seen mariage dootuñu gis flamme boobu parce que ñun jigéen ñi lañuy bàyyeeku completement tu te laisses aller hein. dootoo defaru et tout tandis que loolu da koy laaj ci parce que sa jëkkër miy génn ci mbedd mi xale yu bien bien habillé rek lay lay rencontré ci mbedd bi mm-hmm. fi muy liggéey ak tout tout le monde mm-hmm. est bien habillé mm-hmm. yow bu ñëwee fekk la ci kër gi nga délabré wu noonu et tout sama classe ki sol mal fa et tout sans make up rien du tout sa bopp bi jaxasoo donc day am lu muy wàññi ci flamme bi du ma ne mbëggeel mais flamme bi mooy wàññeeku waa flamme bi mooy commencé wàcc te bu flamme bi wàccee rek góor ñuy commencé di xool feneen donc euh, c'est ñun jigéen ñi war nañ ci bàyyi xel. jigéen ñi am na ñu ci bàyyeeku góor yi aussi am na ñu am na ñu ci bàyyeeku alors que bàyyeeku boobu baaxul ci couple. non mm-hmm. non seulement daf ci am ñoo xam ne dañuy bàyyeeku mais souvent dañ lay doxaan wan benn caractère. Mm-hmm. wan benn pouvoir wan benn mën-mën. alors que ndaw su di ci dugg dem ba ci biir gis na lim doon lim doon gis lépp ak rêve la woon en fait sa à dire yow da doon jaay rêve alors que bi mu duggee ci réalité bi gis na leneen. Mm-hmm. donc loolu day indi ay jafe-jafe aussi ci biir ci biir couple yi lii gën mooy ci ngoro gi booy ñëw nga nekk nit ku sincère mhm. li nga xam boo amee wane ni nga mel wane ni nga mel quoi ah. parce que nit ki bu lay bëgg si loolu mu bëgg la si loolu mhm. su lay bañ mu bàyyi la mais wane li euh, ñaan affiché kaboy joué indo <laughs> di jouer double rôle de double rôle ça pas cool quoi en fait te bari na ci gars yi doxaankat yi <laughs> chaque jour bu ñuy ñëw dañuy ñëw ak beneen affaire ab oto fii wala ñu luwe. <laughs> xam nga <laughs> xam nga yooyu ça. dañuy abbalé parfum. voilà voilà. ça c'est mais na ko quoi. quand ngay dem euh, ngay dem seeti koo xamante ni c'est un mais boo amul lu baax aussi àbb ko ça. mais defal la mais mais en fait day day indi désespoir quoi en fait. ci ci nit bu ñu demee ba découvrir parce que nit ki li nga ko jaay image bi nga ko jaay. mu topp la ci loolu dem ba ci digg bi nekk nekkite du loolu moo fa nekk. tamit tas yaakaar la en quelque sorte. su boobaa daf lay mere li ngeen di nekk yëpp saa yoo xam ne ginnaaw xol bi day naqar <laughs> tey de finalement nous sommes des amourologues <laughs> voilà on n'a pas fait appel à des spécialistes en amour mais j'ai fait j'ai fait appel quand même à deux artistes euh, yuy woy ay woyu yu neex donc en plus de woy est-ce que ñoom mën nañu nekk ay professionnels en amour on verra bu émission bi di jeex euh, j'ai hyper envie de parler calmement parce que soirée bi loolu la laaj mais quand même euh, à force ngay waxtaan da ngay da ngay da ngay quoi parce que mbëggeel ni mu neexee noonu la naqadee selon woykat yi ni muy ni muy tàngee paraît noonu lay seddee ni muy seddee noonu lay tàngee mais est-ce qu'il y possibilité muy neex tout le temps est-ce que loolu mun na nekk tout le temps tout le temps tout le temps muy neex c'est possible moi je pense voilà wala c'est impossible enfin je demande man fi mu ne yéen rek lay laaj. <laughs> mais yéen ay amoro <laughs> spécialiste yi tey. dites-moi en fait loolu moom. gëm naa ne mënul nekk quoi. Ah, parce que en fait mënul neex tout le temps bu fekkoon yéen ñaar rek la. Ah. mun na di neex tout le temps. ak mm-hmm. condition que li koy neexal yëpp mu résumé wu ci seen ñaar ci yéen ñaar conditions yëpp réunir muy par exemple moyens yi nekk fa. Mm-hmm. su ngeen bëggee bëggalante bi mais dafa am yeneen facteurs yooyu dugg ci biir couple bi. Mm-hmm. parce que bëggeel bu ngeen xasee ba nekk rek day am ñeneen ñu ci ciy ñu ciy dugg. personnes yooyu nag dañ ciy indi ay influence influence bu ñu leen bàyyi woon yéen rek mun na neex mais il suffit que ñeneen dugg ci rek te ñooñu mun na leen ñàkk gérer donc loolu mooy tax parfois muy naqari comprendre nga li ma lay expliquer. parce que xarit yi xarit yi duñ leen ci bàyyi quoi. waaw duñ leen ci bàyyi. cest à man la copine aji bi yow daal aji nga feebar mu ngi jooy rek. <laughs> waaw xarit xarit yi goro yi àndandoo yi ñëpp ak ak ak xale yu jigéen yi tamit yi nga xam te ne duñ bàyyi ku góor xam suñ soo amee sa mec bu bien chaque instant bu génnee ñu koy padd <laughs> xam nga tu es exposé xam nga donc du coup yooyu yëpp day ay facteur luy indi problème ci biir sëy ñëpp gëm moo tax moo tax waaw ah day métti ay nit dong lañ <laughs> ah, <laughs> mais est-ce que comprendre ngeen ko noonu jigéen ñi que euh, ay ay nit dong lañu quoi est-ce que est-ce que comprendre ngeen ko noonu mais tu sais que àdduna lépp dualité la. àdduna lépp dualité la. yaa ngi ko wax léegi day neex day metti àdduna mm-hmm. lépp loolu la. donc mm-hmm. mënul chaque fois di neex di neex di neex donc forcément kon couple mënul di neex di neex tout le temps. c'est impossible impossible. Mm-hmm. parce que àdduna lépp dualité la neex naqare. donc euh, day laaj léeg-léeg. Euh, su su méttee. nga xalaat tamit moment yi neexoon. te tamit je pense que pour euh, couple neex tigi li Yoro wax dëgg la. foog ngeen bañ di sóoraale ñi nekk ci entourage yi et tout mhm. pour couple neex tout tigi rek mhm. foog yéen ñaar affaire yi di yem ci yéen ñaar ngeen koy régler mais bu génnee rek ku ne joxe avem ñit ñii di la influencer négativement ñii di la influencer positivement loolu day yàq couple tamit ah day yàq lu bëri couple mhm. donc couple pour mu neex tigi rek foog yéen ñaar ngeen di gérer affaire yi en interne en interne quoi du génn sax ci papa du génn du génn ci yaay du dem ci frère ah. en interne ngeen gérer problème yépp man je pense que noonu rek ngeen ci ngeen di mën a échapper Mhm. sauver sauver le couple je veux dire sinon rek influence extérieure yi tamit day yàq lu bëri tamit couple yi soirée Saint-Valentin en musique oui euh, je laisse le soin aux musiciens de Yoro Ndiaye d'abord ñu installé wu euh, comme ça ñu woyal leen pourquoi pas euh, faites-vous plaisir on va pas rester là euh, à def ay thèmes joxe ay conseils non on veut juste euh, ngeen dund euh, guddi gi tey ba fajar ci télévision Futur Média faites-vous plaisir Yoro va chanter pour vous defe naa bu ca kanamee bu dellusiwaatee dinañu àggali waxtaan bi puisque Adiouza aussi euh, elle va chanter pour nous euh, yéen tamit ngeen mën a bégal seen bopp euh, tey ci soirée spéciale amour ci télévision Futur Média Yoro on va te laisser le soin nga dem quand même bégal ñu mais calmement quoi. xam nga voilà cool xam nga. ay cool ma yooyu. d' accord affaire bañ a métti quoi man du métti mais cool ma. mais léegi ah mais affaire bi dañ ma imposer. Hmm. ci production bi que naa wax ndànk. donc musique bi ah aussi bon? oui oui on, on m'a c'est soirée des amours mm-hmm. tout est rouge mm-hmm. tout est sombre mm-hmm. mais na yoro ak aji way coolement. je vais m'adresser aux musiciens na waxal ak mais tam ji tama ji moom ma si jaaxal sabar bi. Ah, ak sabar yi sabar yi xam nga de temps en temps bu bëggee neexee nag. Ah, gis nga nga am noo defee. ah si vous êtes en couple. allez euh, tam tama ji xawee yëngu tuuti rek ngeen jóg euh, xaw a feccal euh, madame loolu mënul ñànk donc yoro. Euh, c'est lui qui ouvre le bal de ce soir avec quelques chansons d'amour yu ñu leen di bégalee tey ci soirée bu exceptionnelle 100 pour cent les amours ci télévision Futur Média c'est parti yableen waaye fi ndaw ñi yegsee dañu du mënaw leen way man jaaxle na waaru na ndaxte fi ndaw ñi yegsee yow dañu du mënaw leen yàgg nañu ànd yàgg nañu làng fu ñu mës a àndee kenn duñu xool ba gis suñu wuute nga ne la nga ci yàlla moom mi sàkk jàmm la duufi lii dafa metti laal tekat bi laay nobel du jaay du jaay bul ma jaay koy dund ba mu neex joxe soxol ba mu jeex yaakaar dugg muy waaj a neex ñu xëy dàq la ne ku yées kees lii dafa metti waaw ndaxte nag Nobel du jaay du jaay bul ma jaay bu ñi di tànn ngir alal di tànn ngir di xool ci yàq rëy nga tànnal diine ji waaw waaw moom la yónneen taamu woone yow ndaxte daal nobel du jaay du jaay bul ma jaay soxna yesaay soo xëyee ba tonguma yàq leen dafay dalal xel démarré li ci xol bi mooy feeñ ci kanam réema ndax ma kontaan ni chéri nga la réema waay néegu sëy dafa xat ko ci xajalul xaju ci dimare ta ndax ma bu doxin bu dul woon ak ñoom di nga jënd kër yi ñu nga jënd bëri soo jaaxlee ni yaay ku fi man di baaxeey jigéen mooy sa yaay ku fi man di tekki tey jigéen mooy sa yaay yow loo man di doone koo man di doon yow ku fi woon metti lool nga sàkku ñaanu yaay mooy léeg-léeg jafe lool nga ne wuy wuy sama ndey ku ci bégal sa yaay su ñaanee mu dal su kontaanee su ñaanee mu dal ci dëgg dëgg na affaire bi lay ci la ci dëgg dëgg waaw affaire bi yaay ci la waaw bu yaay suñu ñaanalee mu dal ñu nañu fonk yaay baax na ñaanu yaay gànnaaj ci doom yow yaay sama yaay booy ñaanal yow yaay booy ñaanal pulaar yi yéele leen yoon yéele leen yoon ade leen alaar yéele leen yoon yéele leen yoon ade leen alaar adaadaa li adaadaa li adaadaa li ar yéene daal Aja di ko bëgg na wax ma lan la ma wuti ko a la wax ma lan la ma wuti ko chéri su ma yeboon na ma ci yebu ca ci ku ma ba max ma na ci dagat man jël nga mu waaw waaw la mbaa nga seeti ma foog ma seeti waaw mbaa nga seeti ma nit ki mu bëgg su ko sori wi du weeto yow kon wuyu kaa jege ma yow jege ma ñëwal ko lalla chérie wa sulla nube comme serlo sulla bëgg te waaw waaw bu ko di daw lo yow sulla bëgg koti dawlo sulanno bande wa ko koti dawlo ya kon sagal ko sigil ko xol dafa fragile sagal ko te sigil ko xol dafa fragile absolument nga gis bëgg yàlla moo koy def ci jaamam aji waaye min bañ ci jikko lay doon ne faam seede moom lu toll ni xol ko la ko jox moome kii kay sagal ko war na la kon sagal ko sigil ko xol dafa fragile ñëwul di la seet te su ngeen daje mu gën fene aja faatu sekk laani ñabel yoo la doon seet yaayu ma teg mbaaj mama ayda sama yaayi jee su jikko ji mel bëgg la yàlla may leen bul ko jaaxaane su la bëggee bul ko fawee loo ramendi su la nëbbee bul ko fawee loo ramendi nga ni tuma walla nga firima ñaara bi devant le dal ay ay ya si dimbali ma mbi fe mbi fe mbi fe I love you wuyu ma finalement mujj na ambiance ah <laughs> voilà Yoro va nous euh, plateau bi on est que deux applaudir mais xam naa ni seen biir kër yi yéen a ngi applaudir je reste convaincu que nam ngeen applaudissement quand même ah. mais Covid franchement euh, Saint-Valentin coronavirus quand même euh, c'est dommage en tout cas euh, on est très content euh, si vous nous rejoignez soirée bi day doog a commencé euh, dañu ko commencé en musique ak Yoro Ndiaye ah déglu nañu cinq cinq cinq chansons voilà nawle euh, rema reema euh, arwatam euh, lan la ak Bella de très belles chansons yoo xamante ni Yoro moom la yàgg bégalee sénégalais yi nga enchaîné ko tey ci soirée spéciale Saint-Valentin bi ñu leen di proposé ci télévision Futur Média donc pendant que ngay woy luxus naa fi quand même ñaari bague en or regardez xam nga bague en or nag bokk na ci souvent lu ñu considéré comme meilleur cadeau Euh, qu'on peut offrir par exemple euh, à sa femme euh, wala jigéen bi ñuy bëgganteel quoi donc j'en ai ay bagues yoo xamante ni dama ko bëgg a maye tey ci soire bi depuis que émission bi tàmbali yéen ngi gis ay numéro téléphone yu affiché wu ci suufu écran bi donc yéen ñi seetaan on vous offre des bagues en or ñoo ngi ko jëlee luxury bijouterie by Khadim Nia que nous remercions parce que jigéen ñi nag dañu bëgg euh, da ngeen bëgg or ah, da ngeen bëgg takaayu or da ngeen bëgg jaaru or parure or et tout ça nous on vous offre ça euh, tey ci soirée bi donc ñu ngi euh, xaar ba tey seen appel ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot en direct il suffit juste en couple ak ki ngeen nekkal ngeen composé benn ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi comme ça ñu jox leen seen cadeau Saint-Valentin je vais vous rappeler quelques numéros de téléphone yoo xamante ni mën ngeen ci woote euh, nii euh, ci guddi gi euh, comme ça ngeen bokk ci ñi nga xame ni dañ leen di may ay cadeau bu góor wootee ñu jox ko bàgg bi mu jox ko soxnaam bu soxna si itam wootee grâce a Moussé on vous offre bague en or ak it ay enveloppe yoo xamante ni mën ngeen neexal seen Saint-Valentin suba donc 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 ak 88 628 65 65 wala 88 628 04 05 je vous offre et des bagues ak coffret euh, boo xamante ni marque bii di Malado euh, moo leen koy may c'est comme les montres que voilà am na yu ñu defar pour couple montre pour góor pour jigéen on ça on yéen ñi àndandoo ak ñun euh, di ñu euh, seetaan euh, plus enveloppe yi donc y a une équipe derrière ci régie bi parce que waxtaan bi dañu ko bëgg a neexal quand mais dañuy bàyyi mademoiselle Kado qui nous accompagne souvent à chaque fois ñuy joxe ay cadeaux pour qu'elle s'occupe des cadeaux de la Saint-Valentin donc on vous attend 88 88 628 04 05 88 628 65 65 wala 88 628 20 euh, 20 euh, numéro téléphone yi mu ngi défilé en même temps ci euh, suufu écran bi ñu ngi leen di xaar allez Yoro Adiouza ban appréciation ngay def ci li Yoro woyal ñi bëggante tey seetaan. Yoro moom ku ko xam-xam ne ndaanaan la. te vraiment c'est un artiste de live. Mm-hmm. dafay dafa tàmm def live. en général soirée yu bëri dangay ngay gis soirée kilifa lay def. te ay soirée dafa couplé quoi kilifa ñooy ñëw ci ay soirée ay soirée kilifa lay def. mais soirée dafa donc nekkul soirée géttu bay. <laughs> ça loolu loolu j'aimerais quand même mu wax ci tuuti Yoro euh, est-ce que tu as remarqué que. Euh, ce soir est toujours couple yi ñooy ñëw. day bëri monsieur ak mm. madame quoi mm. des des gens qui s'aiment euh, tout le temps ce soir dafay couplé quoi. Mm. defe naa noonu noonu lañ koy dafa am classe dafa voilà dafa am classe et toujours da ngay gis voilà ay nit yu euh, yu bëggante couplé ñëw toog di déglu sa musique je sais pas euh, en tout cas li ma ci mën a xam mooy <laughs> bëri na ay couple yoo xam ne ci sama sama sama soirée lañ takkante c'est vrai na ñoo xamante ne bii uh-huh. ci samay soirée lañ xamante uh-huh. ba takkante nekk ay ay jëkkër ak jabar loolu mu ah, c'est ci samay soirée yàlla def na ko qu'est-ce euh, bu ay nit dee ñëw ci sa soir ba bëggante ba takkante ba sëy ah sama me fait plaisir wax dëgg yàlla loolu je crois que ah, war nañ ci mën a am sax yàlla de parce que ay nit ñoo xamante ne bii euh, sëy nañ ba yàlla def ci ci farataak si yàlla ci farata yàlla ak sunu Muhammad ba yàlla def si njaboot bu barkeel wax dëgg yàlla grâce ci sama ci sa way quoi waaye am loo dugal ci way yi <laughs> <laughs> booy woy rek ay coup de four ay coup de foudre mooy jàll ci euh, mooy jege ci scène bi di dugg ci euh, public bi xam nga nit yi di bëggante noonu quoi. bon je sais pas en tout cas wooy daal dangay ngay rek sànni nit ñi ñoo koy approprier. dëgg waaw ku nekk yaa koy xool usage bi ñu ciy def am na ci ñoo xamante ne bi tamit juboo nañ ci. ndax sama ay woy grâce ak yàlla defal yow yàlla def na ko sant yàlla la. en sant yàlla la. nit ñi nag moom bu ñu la joxee bopp dañ koy sant rek dañ lay ñaax aussi. waaw sant yàlla waaw da ngay gën gën a góorgóorlu pour mm-hmm. ñooñu bu ñu la jëpp jamais ci li ngay def. Mm-hmm. donc ñu ngi taqale rek yàlla rek moo mën. waaw ah, yàlla rek mën yàlla may kattan gi. amiin waay amiin amiin amiin amiin est-ce que yow aji it est arrivé euh, nga dund une histoire d'amour euh, enfin euh, wala nit dund histoire d'amour à travers sa ay concert wala à travers sa ay woy ñu nettali la ko mais vraiment mu seddal sa xol bi quoi. bah, comme bus bi. bus bi par exemple le thème. Uh -huh. beaucoup beaucoup de gens m'ont appelé. Adiouza yéex nga wéy lii parce que man <laughs> coup de foudre la am ci bus wala coup de foudre laa am ci avion. donc c'est des trucs qui arrive boo xam ne ne des thèmes yoo xam ne on l'aborde pas. Mm souvent mais bi ma ko aborde beaucoup de gens m'ont appelé quand même. Mm-hmm. pour euh, témoigner ma ne am na dund nañ ko waa ñi ñenn ñi sax marié nañ ci et mhm. noonu la ñu xamee seen jëkkër ñi noonu la xamee seen jabar mais la moo tax mbëggeel mel noonu quoi un truc boo xamante ni fu ne nga koy dundee <laughs> mën na la dal ci bus mën na la dal ci mbedd na la dal ci marché pourquoi moom mbëggeel dëgër bopp quoi mel noonu mu mel rek nga xam fu ne lay juddoo c'est c'est grave en tout cas c'est un sentiment bu grave quoi doy waar bu kenn mënul mhm. maîtriser exact c'est-à-dire nit kenn mënul la wax c'est-à-dire da ngay gis parfois mu jàpp kilifa def loo ko noo xamante ne bii. xam nga waaw kenn du ko foogee donc c' est <laughs> yàlla la daal. kenn amu ci maîtrise en tout cas spécialiste yi war nañu war na ñu ci mën a wax. naka la ci nit mais est <laughs> yi sax mën nañ ko. est-ce que kenn mënu ko maîtriser en fait. mëgël dafa large en fait. dafa yaatu loo ci wax rek.